ordonnance tey rek laa lay jot dàll nga daal daanu du la xànju impro lay def yaa ngi seen bu ñuul kukku may rab bu jël sama ñaari oom daal di koy sukk may rab ba dugg dugg siin waxoon naa la ko biti taxawa ngay rab di gën a fannawa mala kay caw sama rab moo dak bu daawa impro lay def ni fal ak ay tim ram day ma suba aw ci kaw daat na tim impro lay def ni yor benn caméra jëlal lii ma may mooy maam jaara tee may koy fi takkuma lam wala jaaro waxoon naa la ko damay téye nga may tàllal loxo man may fondi loxo yo gotal fambalel nigga yeah nigga eh you got the mic drop ci nigga eh ay yow nañu may beat bi yow nigga ay uh-huh. la beat bi ñëw yow nigga wala system tout ça yeah maa waral xol tout ça yow tout ça ay yow nigga wala wala xol tout ça may robati te kaddu yu dul fayati foog rob feegi fi kenn dootu fi reñeti delloo dëgg ci ndayam amul luñ fi layam dëgg kenn rayam ñeme ko jaar ci fayam eh, commission wey wo ah kako ci yow na ci yow share it partage li ma doon séntu boo yéexee doo ma maa ngi ci yoonu double H yes yes yow I am the last a the first la disturb ba joobu bopp laa kumbi sista du sa maas bañ bëgg laa may aas bul kaas liggéey du fen mbër su la loo màgg daan ay waay kay get li may xalam daw na yaram fu la fekk soppi la yaaram nangul waay sa ndaanaan teew na jëwriñ laa ci rap samp dëgg sempi sa faan wa garab laa ci naaj kaay keru laa jagu uddi noppi maa xedo

will there. Then I microphone, I leave some of your baby. Rock your pay, fuck mine, the work there. I am flow technique, I'm a tip set. I'm a tip set. I'm a tip set. I'm a tip set. Yeah. Yeah. Ah, ah, yeah. Uh, uh, watch, man. Yeah. bari fen la jigéen la du geen la jaabate seen la soxla nga ma seen ma lirik si ñaw nga een ma tànk matte tënk yàbbi li rënk li ma rab teel ba jël bi fenk jaa fépp cëpp daa jaru saa man jaa maa ngi kaw haaj ci nag bella sister bi lay bégal yow yaa ngi geer samay son damay bomba am bee ci rap bi du may seen garab bi fag nga fam rongañ bul jooy MC fat yaa one two check ah. est yaa ngi dégg ah. sound bi may fëgg moo di real hardcore ënd doore uptown jàpp downtown buntu yëpp la may fësal ngay ënd signal kumbi si sa jox la signal xaw shit bépp maay shifa def lu xaat shit kumbi si ma sa baay ni que pap bi doon na nation I am patient a lion nga bëgg ko bañ ko jàppal ne lii mooy li dëgg man si sa kumbi fas yéene ëpp taal bi ba mu boy ropp bi Rabless no stress seen princess is back lyric style di leen ko bàkk kon booy ndànk balaa ma lay sànk du maas du ma sa galaat doon góor doon sa aas may doon fa aas dara man si sa doon soxna si teewal jaxal xib bi jaaxal feegi bëggoon toroxal ma jàpp leen jonju leen ba noppi jongal leen